بذاك والإخوان الجميع سعادة الدارين أقل يا سميع mbokk yi xam ngeen ne fan yi yëpp gannaaw bu commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital Serigne Mouxtada moom Serigne Abdoul Fattah doore liggéey boom solo bi nga xam ne nii naka jekk at mi yëpp ci la ñuy nekk rawatina nag bu weeru koor gi teroo ñuy fàggu dund goo xam ne dana mën a jàppandi ñi nga xam ne dañoo wuy si wooteb sëriñ bi te manqué lépp ndax bari na ñoo xam ne bu dog jotee ñu toog ñu tegal leen lépp waaye nañ bàyyi xel ne am na ñoo xam ne dañoo manqué lépp ñooñee nag la commission sociale di taxaw waxtu nekk ci social ramadaan tey ñu ngi kenn ci ndawu taalibe yi nga xam ne nii naka jekk ndaw lañ de caayaat waaye seeni jëf jëfu mag la du jëfu ku ndaw ceeb bi ngeen di gis di téeméeri saaku ceeb xaadim amar di ndaw loo xam ne mu nga bitim réew di yëngu waaye xelam yépp mu ngi ci réew mi naka jekk lu social mës yëngu mu ngi ci màggal gi xéwal yi doon séddale loxol xaadim a nga ca gàmmu gi xewal yi doon séddale loxol xaadima nga ca loolu nag yaakaar naa ne lu am solo la ci ndaw loo xam ne ma nga ca biti waaye xel mi nekk fii ak yittewoo faj soxlay doomu aadama yi rawatina ñi nga xam ne yaakaar naa ne ñëpp a war a jàpp ci li mbokk yi lii dong moo tax waxtu wu nekk ñu di ko wane ngir mu doon ab soñe waxtu wu nekk ñuy fàttali waxu sëriñ Muntaxa gi ngir mu doon ab soññee ndax dëkk bi kat bari na ñoo xam ne nii seeni i lenn lenn lenn mënuloo matale mbokk yi te mbokki taalibe yi rek leen war a taxawu kon xaadim gàcce ngaalaama lii nag ku koy def ku ne yaay ñaanal sa bopp sunu borom lafal la cat te may la fan wu gudd nga yàgg di liggéeyal sëriñ Touba ndax sori tere a liggéeyal Serigne Touba kon Serigne Mourtala yaakaar naa ne ndaw ngi nii ngoo xam ne nii jàpp naa ne mag ñi sax war nañoo mën a roy ci moom ci liggéeyam bi nga xam ne yaa ko seere sànq ne waxtu nekk loxo ma ngi ci biir social sëriñ bi ñaari baat rek. Euh, di sant bu baax rek sëñ Xaadim Amar ci noonu ko sëriñ Cheikh waxee jamono ju nekk moo ngi seet ci liggéey bii ñuy def mu di ci jàpp ci anam yu nekk monsieur su ko soññi ci benn waxtu waxtu wu nekk rek moom mooy woote di ma laaj damaa bëggoon def nangam damaa bëggoon a def nangam léeg-léeg sax da koy da yónnee ba noppi soo di ma ko yëgal euh, bu ngeen xoolee ci màggal gi am na sàncaan amoon ay xéewal yu ñu fa yóbbuwoon ngir bu bis baa ñu mën a màggal màggal ko foofu ñaari nag yi nga xam ne moom la ñu fa yóbbuwoon moom moo ko fàgg woon biñ demee ba ci gàmb gi tamit fekkoon na am nañ programme bu ñu bëggoon def ci ci biir jumaa ji waaye liñ doon def ci sancaan yi yëpp moom moo ko moo ko defoon te du denc loolu maanaam ba ci cas yi nga xam ne ni noonu ko suñu Cheikh Amer waxee ci ñi wéradi da ci jàpp fee ci Tawfekh Bousso xam ne dañ faa engagé woon lu tolloog fukki kër yoo xam ne ni bokkutoon ci programme social nga xam ne ab jaayante la woon moom mi bokk na ci ñi nga xam ne dañoo jël ak kër jaayante ko ña ngi fay defar néeg ak euh, toilette ak euh, ak euh, waañ te loolu lépp ci ak jàppam la eh, li mi ngi jàppale bu baax daal di ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom gën a yokk ay xéwalam àgg na ci biir koor gi amoon na ay naal yu mu ci naaloon yoo xam ne bëggoon na bis bu set heure bu xëyee ci bis bu set mu yëkkati lu tolloog junni mburu jox ñu ko ngir ñu mën ko jox jox askan wi ginnaaw yàlla man maa ko wax ne ko loolu moom yërëm nañ la ci ndax li ngay def doy na sëkk ndax joxe bi dafa jiitu laaj bi ba tax na kon loolu moom jégal nañ la ko waaye teewut ginnaaw bu ma ko teggilee tamit gis naa ne ma ngi koy ma nga wéy di ko def kon ñu ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën a yokk ay xewalam defal ko wér ba li mu yéene lépp mën ko àggal sëñ sëñ xaalim amar mii nag doomi sëñ fàllu amar la nekk ci bitim réew di fa di fa di fa yëngu kon nag noonu ko sëñ Cheikh Amar waxee rek kàddu yi mën na sëkk ñun daal amuñu lu dul sant ñu ngi naan ko jërëjëf amuñu lu dul ñaan ñu ngi ñaan Cheikhul Xarim fayal ko boppam jërëjëf بساك والإخوان الجميع سعادة دارين أقل يا سميع